kàddu yi nag dañ koy tënk rekk ci kàddu yi sant ak ndokkeel ak rafetlu waaye ak soññee kàddu sant yi dañ ciy jiital sëriñ Cheikh Sylla ci liggéey bi nga xam ne def na ko muy liggéeyu xam-xam muy liggéey boo xam ne def na ko ci waxtoo def na ko ci barabam def na ko ci waxtu wi ndax waxtu wii dañoo tollu ci war a gën a yittewoo defar jikko yi defar xol yi sellal ruux yi loolu di li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bëggoon ci ñi ànd ak moom ndax moo doonoon mission bi ko taxoon a jóg mooy defar doomaadama te xam-xamu tasawuf mooy xam-xam bi defar xolub doomu te waxtu wi xam nañ ne jikko yi na àdduna jiital na nit ñi bakkan not nañu baree bari kon dundal xam-xam boobu yaatal ko rawatina ci ndaw ñi loolu lu ama am solo la lu ñëw ci waxtoom la waaye ñëw ci barabam ndax xam nañ ne barab bii barabu xam-xam la sëriñ bi lim wax ci matlabul ni ñun ñi fi nekk ñëpp mën nañ ne ñu ci bari mokkal nañ ko du jar ñu koy tudd waaye lim ñaan ci dëkk bi mu doon dëkku xam-xam loolu lu mel nii moo koy gën a jëmmal moo koy dundal kon téere bi muy liggéeyub xam-xam ñu di ko tasaare kon def nañ ko ci barabam ñu di ko rafetlu ndax dafa ñëw ci waxtu woo xam ne kii nga xam ne moo fi toogal cheikhul xadim radiallahu anhu di cheikh mouhamadul muntaqa ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool yokk ak wéram fim ñu jëmale nun ñëpp mooy ñu gën a yitte woo xam-xam ndax day faral di wax ne xam-xam mooy lépp lépp lu baax bu ca xam-xam àndee day gën a baax mu doon koo xam ne xam nañ ko ci muy teral ñi yëngutu ci xam-xam at mu jot gis nañ mu yendoog ñoom di leen soññ di leen ñaax di leen jaajëfal kon lii dafa mel ne day wuy ab wooteem kon loolu ku gis sëriñ bi ay jëfam ak waxam nga gis lii mu taxawal muy mu jàmmaa Cheikh Ahmadul Khadim li tarbiyati wa takwin defal ko ndawi Touba waaye defal ko ndawi réew mi mën nga ne defal ko àddina bépp kon wa lii ñu wan nañu aw yoon kon sëñ Cheikh Sylla lim def exemple la boo xam ne damay woo ndaw ñi ñépp ñu gën koo bàyyi xel xam ne war nañoo def rupture xam ne ëllëgu réew mi ëllëgu lislaam ci loxoy ndaw ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam jéem a jaar ci njub ci la nekk kon nag nañ jéem a góorlu jéem a wane fulla ak yitte ci wàllu xam-xam waaye wane ko ci suñ comportement wane ko ci suñ comportement loolu ay kàddu la yu gàtt yuñ bëggoon a yëkkati la di ñaanal sëriñ Cheikh la yàlla nangu liggéey bi te barkeel ko te yaatal xam-xam bi kon ñu ngi koy sant di yeesal sant gi ci turu sëriñ Ahmad Badawi yu mi nga xam ne moo jiite Rawdu Rayaahin ndax xam ngeen ne Rawdu Rayaahin la ko taxoon a jóg ca sëriñ bi féetale ko foofa mooy tasaare xam-xam tasaare njàngalem sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu kon ku ci nekk di ci yëngutu moom nga ca nekkal moo tax ñu ne woon faw ñu ñëw yëkkati kàddu yi seede yëkkati kàddu yi sant di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lii gën a bari gën a yaatu boo ma bu xoolee téere bi damaa gën a bég ndax bu ma xoolee ki ko taalif bokk ci njabootuk sëriñ bi ki ko tasmiim ba fiñ ko moole lépp kon mooy buntu bind ak tasaare ubbiku na ñu war ko bàyyi xel xam nañ ne gone yu ndaw ñu bari ñi ngi bind lu am solo ci ay wolof ci ay arab waaye kenn ku nekk da koy bind denc ko léeg-léeg nga wax ko fenn rek waaye war nañoo xam ne war nañ koo dajale di ko génne ndax loolu xam-xam la buñ demee ba ci ay at ci ginnaaw lii mooy doon xam-xam bi nga xam ne mooy wane fi xam-xam toll woon ca it mooy dundal xam-xam ca loolu bokk na ci li ñu sëriñ bi wax ne ne kuy jub wut xam-xam war na caa boole ixyaa ulil ulum kon yal na yàlla barkeel liggéey bi yal na yàlla nangu ko yal na yàlla bari la ay kemam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.